jëmmi nit lañuy fàttaliku ñaar lay doon kii daa baaxoon lool kenn ki kàccoore woon lool ñaar ñu desu ci fàtte kenn ci jamono buñ cay fàttaliku ku baaxoon lool am na nattukaay yu ñu ko war a fàttalikoo bokk yi lim nañ ba atum ren bokk ci ñu ne téeméeri at jàll na bokk yi téeméeri at bala ñoo dem fenn nañ xam ne yées na ci li fi kaw suuf li suuf waroon a am ci kaw suuf li fi nit ñi war a am ci kaw suuf kon gën nañoo jege yowmal xiyaama doxub téeméeri at dox nañ téeméeri at jëm yowmal xiyaama daal téeméeri at yooyu nag bokk yi kañ cay tànn tey di ko fàttaliku ba waral mbooloo jóge fu nekk di ñëw kenn du ko fàtte waaye xam ngeen dundam gépp bu ñu ko tënkee lu waay gàtt gàtt xel man koo xam moy yowmal qiyam rek la ci doon wajal ci pass pass ci wax ak ci jëf weesu wut di xalaat tiit mané ci ca yowmal xiyaama ak yam àndal yépp dajag dajaga peese jëf ya kenn ku nekk ñu la natal la say jëf won la kër ga ngay dugg gannaaw buñu ñu sirat téméri ak at yam fa am ci kaw suuf mutu téeméer waaye kër kër ja weesu wutoon rek xalaat bis boobee ak waajal ko moom bokk yi bis boobu bis bu mat a bal xel la bu ma ko soñoon wax sax dama naan moom rek moo ko mat bis boo fi gis ñu di ko siintu am nañu yaakaar ne danañ ko fekke am ñu bari ñu ko fekk jàllaat dindi kat beneen waye booba ñu jëk dem nangami junni at ca gannaaw ak nangami wër ci gannaaw ak nangami fan ñoom ñepp da ngay taxaw di négante fenn fo xamne ñi ñi ñepp dañu fay fekk bes ñu àndandoo ñun ñepp wuy jéendoo ben yoon ay turam ku dem ci alxuraan dang ko ci fekk mu ne gañ am ñu ci wañu lu mat ñaar fukk ak juroom ñetti tur yo xamne ben boku tek sa morom nam tuddu ak la tax ñu ko bokkut ak suñu bis yi de yàlla nee na ci alxuraan bu ngeen ko mënoon natt ci seeni bis yàgg na juróom fukki junniy at miqdaaruhu xamsiina alfa sana kon boog bis bu yàgg lay doon ndax lépp lépp ci lay lijjanti ko am na fu ñu ko tuddee yowmal qiyaama ñu bari moom lañ ko xamee مملا القران ده هنا يوم يقوم الناس لرب العالمين بيس دنا نيو نيب ني فوج جات سي سيني بامل داجي جي فن فاني داجي يالا مولين فا سخلا مولين فا وو كين دوكو ووتي متنا واجال دي باتو يوم القيامه ولا يوم القيامه كو ديم سي القران لوم نيو نيو مات نفا جوروم ñaar fukki yoon té benn bu ci nek ak la cey tégué waye dañ amna sar bo xamne ci alquran mo lañ ko tudd sawtul qiyam la aqsim bi nafsi bi yawm alqiyam wala aqsim bi nafsi lawama ku ko ci jàng ku ko jàng it da nga ci dem ba ag ci yawma idin yunabbawul insaanu yawma idin bima qaddama wa akhar bal il insaanu ala nafsihi basira lum ma sa def fam ko tambale ak limu mu def lépp da nan tel fi kanamam ñëpp diko séen ñu ne ko iqra kitabak kafa bi nafsika yawma alayka xasiba soxlawu comptable tey kenn ku ne doon sa comptable bopp te su nit ki bëggee riche ci biir wax ji boole ci lu ci bokkut cër yaay lànk al yawma naxtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yaksibuun booba bés nag bis bu rëy la bu tiis la waaye am na fu mu tudd ci alxuraan tam al axir al yawm yawmul axir yuminuuna billahi wal yawmil axir am nañu ne la tax ñu tudde ko ko moom mooy amaatul beneen bis bu topp ci ginnaawam lépp kër lay yem da ngay dégg ku fi bàyyi ko ñu ne tey la ñu yemale lépp déedéet jeexagut des na lu tey nit ñi di xëy si di kontu si lu tey ñu saam alalam séddale ko du tee jamono du wéy ñeneen ne fi waaye ci bis booba képp ca lay yam amatul jàll amul prolongation amul prolongé jaroon na nag bàyyi àdduna li ci biiram lépp di ko xalaat waaye am na bu tudd al axira wa bil axirati hum yuqinuun mooy kër ga ñuy joxañ nit mu defa dëkk it du fa toxoo fa lay sax ba faaw am nañu ko si sax daarul aaxira wa inna daaral aaxirata hiya al qaraar aw kama qaal loolu ku dem ci alxuraan ëpp na ci téeméer yoon fanweer moom ñaari baat yooyu waaye am na bu tudd tam saa بولا مش القرآن دنج تفق يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم بسبب ساعة تخو لو صح من نجو بساعة تخو إلا أبنا نلفي بساعة تخو موم لا تخنو في بلكو هنا نج داي بتنيب يونت بسال الله سلام عليه نيت دنا شق أغنيت أم ديمو بومي ماتر ناكو ماتر نياتر مدي كنا ثالرك متعاوش ديجن مام ديجن تبي nit dana dem ba sóor la muy togg bala moo yàq mu xew ci diggante bi suñu borom nee ci alxuraan nit dana ca tiit doy na sëkk tiitaay nga jigéen joo xam ne day am doom te am jonom doomam jotagut wala mu fab doom jam doon nàmpal sànni ndax tiit ak jigéen ni mu bëggee doomam ju ndaw ma tadhalu kullu murdaatin amma ardaat wa tadaau kullu daati xamlin sukkaar ولكن عذاب الله شديد ساعة مم أبنا فنوريون جروم في القرآن ولا مرنا بسك بتشنك أغلى شيء تجيت أمت ويتبنا واقعة تبنا الحق واقعة نك بوي وقت شجع من الدنيا لي واقعة تسون جمرة كون لينيو ولا لودن لودب لودب لينيو ولا لودب مو كتشي أدنى تأكسوت waye fitna al haqa moy fo xamni fi ku yeyo man ku layoo mënees na la yey waye ku yeyo man nga lay ku lay man nga yeyo man nga lay ba yey waye ngay wax lépp deug lay doon de bokkut ak lay yo xamni dina la neel nangam fi comme niñ koy def suñu jamono fa la lépp di léré lu way dencoon danañ ne fàng nga ci biti amna as asaaxa فida jaat saaxatu yawma yafirul mar mboolem ku mu xamoon rek dana jéem a tàggoog moom ndax tiit naan taluma la li kulli mri'in minhum yawma idin sha'nun yughnihi waaye tudd na itam yeneen tur yu bari al azifa al taama al ghaashiya al qaari'a al ba'th al xuruj al fasl al xisaab al jama' الوعيد الدين الطلاق التناد الحصرة ييب لمي تكتلي أك التغابن أك الخلود يوم الخلود لمي تكتلي رك موي مغا ريا يبسب أك بن بسبو خمنا تلي ني أتي لكو تامبالي كي سيمام آدم با سيم موجوك جامان كين بار كين كين كوني كني ووكو موخ ñi peesal ko mu dem ñu nekk ci topp ba ba ñuy mat loolu mën nañoo jaaxal waaye jaaxalul yàlla lu yomb ci moom la sa yaj'alu llahu ba'da usrin yusra lu jafe ci ñu nag bañ mën defee ne mënta sotti lu yomb fa yàlla bokk yi nag kiñ ki tànn tey di ko fàttaliku tax nit ñi jóge dëkk dëkk aw turam siwu na lool ba weesu na fàtte waaye wax naa ne dundugam dundam gépp bis boobu la doon waajal dundam gépp yim fi bàyyi gannaawam it ña ko war a toppatoo toppatoo ko ba muy dox na mu war a doxee ci lu baax it lu ko fay fekk la ci jublu woon ndax yonent bi sallallahu alayhi moo ne ku fi bàyyeekoo lépp may dagg ba mu des yent lim na ca bàyyi fi ñu koy ñaanal gannaaw di def yu baax di ku yéene gannaaw xam-xam bu mu fi bàyyi ñu di ko jariñoo wala njaboot gu mu teg ci awyoon te moom jaanaam wàccoon na ca nag bokk yi loo gis ci àdduna rek fàttaliku la nañ fàttaliku téeméeri at yi nga xam ne war nañu ko gannaaw booba ak léegi gisatuñ ko niñ def ak jullee juróom noonu ak ko fonkoon dem na ba défier autorité bi autorité bi ci jamono yooyu mooy kan ñiñ ne woon ni ñoo yor Sénégalais yi waxtu julli la mu doon julli fekk na ko fa mu julli ko fa xam na suuf sépp yàllaa ko moom julli amul fenn fu ñu ko mënta defe ci kaw suuf kon dara jël ko bañ ko fa julli xamul ku fa nekkoon yàlla rek la ko doon seetal nee na it demoon na ba waxtu julli jot ñu xatal ko mu julli si ndox mi te ku ne xam ne ni fii ñu dëkk bari na si ñoo xam ne bu yàggutoo lañ tàmbalee gisul géej dex gu mag sax dawuñ ko gis ku ma sa gis dex ñaari ndar nga dem walla boog Saalum lu ko jaraloon julli sëñ ma bañ njaay nee na ba ñuy sañ ci mbakke baar yi defar nañ kër ga ba def ca lañ ca man a def lépp mu ñëw ne ana jàkka ja jàkka ju lépp tax a jóg ñooy defaguñ defaraguñ ko mooy dindi leen li ngeen defar lépp ba defar jàkka ji ba yàlla huwal aaxiru huwal awwal wal aaxiru ñun def defar jàkka yi kan ci ñun moo mën a wàññi ne weer wii lépp ci laa ko jullee xanaa duñ ko fàttaliku ci loolu ak fonkam julli romb na aw nit ñuy sàkkat suñ mu lim Jóob Dagana bind na ko ñu ne fu ngeen nekk lu ngeen nekkoon ba julliwu julliwu leen da ngeen julliwu te ñu ne dañu nekk ba àggal li mooy dindi leen ba mu set ñu tepp lépp am na ñoo xam dañ naan fii lañ toll woon déedéet dañuy dindi leen lépp ñu teppi lépp mi ngi taxaw ku xamoon war téef la ne ay ca ñe leen coow dem julli ci bu ngeen ñëwee lu ngeen bëgg a def ngeen def ko kon lam leen bëgg a jàngal mooy julli moom ndigalul suñu borooma lañ koy defal moom moom lañuy seet bànnee te la ko gënal mooy ñu leen julli ci ba noppi moo ne ak fàttalikoom gi si gën a fës ci réew mi moo jaaroon fii ay jàkk nga fay seen ñun lu ñu defee waxtu yu juróom bari na ci jàkk yoo xam ne suñu Sidi Moxtaar waxoon na ko fi bari na loolu waaye foofu dem yént sàppee du fees xanaa ñun amuñ lu ñuy fàttaliku ci moom kon moo ne tàllaloon na ab kaas ñii ne maam Cerno la waaye moom ci boppam def na ko moom kaasub ataaya kaasub ataaya lu tax mu tàllal ko ko da ko ne loolu tey jàpp daa gis muy tiim mu ne ko daa amum neew mu ne ko neew fu muy ne mu ne ci kaw yaram bi ba mu ko koy laaj moo ko gën a xam neew kuy nit xam ko ko ba mu tiimee ba julli ba noppi ñuy attaaye mu tàllal ko kaasu attaaye mu jël ko ni fu wax naan mu ne ko danga ciy tappale nga nekk nooy fabe ndox mu tàng di ko def ci sa yaram sa biir sa biir biir bii mu ciy dugg di dem te mënoo fam ndox mu set def ci kaw yaram bi coow te dem jàpp ci julli ci xanaa kon amuñ lan lu ñu fàttaliku ci moom xanaa julli moom moo ci gën a jege nit ñi moo ne bi ñu ko indee Touba bis ni tey di def ci moom la suñu borom santaane si jullit ku dem ci Irwa Nadim da nga ko ci fekk ba ñu ko defaree ba noppi suñu mën lim Jóob moo ko bind bokk na ñu duggoon ci biir kan ma bañ àggee ci war a def jal boobu ñu defal ab jullit euh, suñ mbokk ma mu jóge woon Mauritanie daa nodd fekk fajara jot loolu mën a tënk lépp ñu ne fa ñukk lañ doon def kenn du ko fa na ñukk moom de waaye lañ doon def lañ fa na ñukk dem suñ mbokki bu sa jiite ñu julli ba sëlmal def la ñuy def lépp la tax lenn ci waa Touba ña fa dëkkoon ak néew yëg ko siin fa mbooloo ma kenn ku ne daa teylu la doon def lépp ginnaaw julli suba mu def ko ba noppi sëñ Cerno Birahim maam Cerno ne sëñ Mbàkke noonu la de moo ne woon de lu ngeen di def bu leen si julli fekkee neen ko bàyyi te dem julli ci lam leen di jege jege lañ koy bëgg bëgg la am am njariñ texut ñu jàng xekkara ba fàtte waxtu waxam ja ci kaw ndigal lu mu leen joxoñ suñu borom subhanahu wa xanaa kon amul lu ñu fàttaliku ci moom julli ci gën a jege yu bari la waaye defar gam doon defar nit ba ku fa toog doo fa bëgg a jóge ana fu mu nekk léegi ana ku ko taxawee xanaa duñ ko ci fàttaliku buñ joxoñ kenn nag ne moo ko war a def kenn ku nekk na xool kër gam dëkk ak ñam jaboote ba xam lu mu ca def am na def suñ digganteeg moom fàttaliku ko ci xam-xam ñaata téere la bind ci ñàkk jotam ci ñàkk jotam ci kaw ñàkk jotam yo xamne ne seeni njariñ ba fi toll ni day raw am na ci yo xamne boko xolé da ngay defé ne tay ji mo moo ngay wax kon ay waram mi ngi ne wét ci mborom l'islam ba faaw waye ma fatali ne dundam nga lepp wajal yowmal xiyaamaat rek ko jëmm la woon joo xam ne ji xamutoon raay raay gannaaw raayalante gannaaw bi xew la ak suñu jamono loolu war na ko fàttaliku ci moom jël ko muy ay jikko kenn ku nekk di xool la neex diw ñoom rek mu di ko wax musu koo dal musu koo dund Serigne Cheikh Sarr moom Serigne Mbaye Sarr nee na ñu bari dégg na ko am na bis muy waxtaan ba wàññi leen tib yi boo dem gis bu xool dañ ci fekk آه، له خطاب داعيه بما يحب ماضيه وقاد لاغراضيه زادا لدار الكرم من واني لن تبي خمنا كوي دم دي لك ويخوم لك دي دم شيخ صار ني امنا كو جوب نكو ما ني دمان سمو بيرغي ني نياد مونكو باي سما واخ نغي دوغالي من سونا نياد نيادلو ما مان man amee sànni fal nafsi kon xamutoon ragal gannaaw kenn kenn ku ci nekk bu wax jotee lam lay wax la lay wax am na koo xam ne kii mbokk mu jege la dañ ko fa yóbbu di ko wax askan bi mbokk mu déglu ko ko ba xam àggal mu ne ku ko mën a jur na jaamu ji yàlla ma ne ku ko mën a jur na jaamu ji yàlla mbokk yi mel nii mi ngi nag gàññ ci mbindam mi xanaa fàttali jëm ca loola am dañ koy jàng di jàll rek ak xew ci jamono kenn ku ci nekk la nga bëgg a la nga bëgg a dégg dong lañ lay wax ba tax na yu baree bari doo ko yëg doo ko xam te moo ne war waru garoo ma nga fa toog di xaar kon boog nañ sàmmoonte ci bu ñuy waxtaan bu ñuy fàttalante ci nituk yàlla koo xam ne dundam képp xalaat àllaaxiraa taxoon amul soxla ci adduna ñu cay bàyyi xel ñuy noo ndax noo ko ca dem du dellusiwaat di ca bàyyi xel suñuy làmmiñ làmmiñ boo xase ba wax moomatoo ko euh, mu bind na li anna kulla nafasin min rajuli jawharatun nafisatun lam tamtali noo bàyyi ko ci nit du ci dellusiwaat waroon na caa mën wax lenen wala mu def ci lenen lu koy jëriñ ëlëk ba mu def ci wax ay kasaw kasaw kese kese kese kese kese kese kon bok suy mata témèr li ëpp ci ñun du ko fekke waaye nañ ko ñaan yalla yalla ñu ko yalla defal li ñu ko mën a ko bari julli waaw daa kon koor ge ba nga xamne bu koor gi jup lo wax mu ne luñu ko ndax gan gi deug ma waye bu koor gi xasse ba dugg si lo ko wax rek dana ko fajj royé ko bu de lu nit di joxe ci loxom bu de lo xam yalla lañ ko ñaan ñaanal la ko yalla am nañ ko dan dak wéru koor ak gam diko di soxla soxla suñ ko digg rek bu dee lu nit di faj léegi léegi dana ko faj waaye wares na ko fàttaliku itam ci nangoo liggéey bañ a gën a bañ a gëm baat bi ñuy wax toog rek muy dox musta toog mus sa noppalu li ëpp ci ak dundam xamut fu muy yendu xamut fu muy fanaan ndax ci ay yoxu la nekkoon musut ne fu ngeen ma jëmee musta jàmbat léeg-léeg nga dégg ko ne man nangam ci gisuma ci sama bopp musu koo wax te bu ko doon waxee yàlla dong la koy wax te moog yàlla waaye musu sa jàmbat nit dégg ko bëgg naa wala bañ naa déedéet. fii nag ne fa lañ ko yóbbu woon ku ñu fa yóbbu ci jamono ji ñu toll na la fa cundum wàcce la ci àll bi li ngay jëkk a xalaat mooy ana penk féete wala sowu fu mu féete te boobu gënoon na lëndëm gënoon naa xam. waaye du ñu waxtaanee mukk lan moo ko jaraloon coono boobu dañuy fexe ba nga yërëm ko te bokk yi ko yërëm du toog mën a roy ndax yaa ko tane dañ ña ko daan waxtaan dañ ko daan kañ bëgg ku nekk bëgg a mel ni moom lam am nga bëgg bëgg am sa wàllu bopp tudd naa tërbiya tudd naa xam-xam am na ñu fi bàyyi woon liggéey nañ ci lu bari waaye léeg-léeg sottandiku day mujj di su di ruus ndànk ndànk ndànk ndànk yàlla ñu ci mu musal kon kenn ku ci nekk bu mu jéem a joxoñ kenn nan kii moo def lu mu wutoon def wala doon waroon naa def lu mu lu mu defut waaye kenn ku ci nekk boo fekkee moom ngay tuddoo yow ak noo ca mën a demee fexeel ba sag njaboot def lu ëpp la nga doon def yow ndax bu fekkee dañ koo téye foofu mu téye téyewul ñoo dolli na ci junni doyul la fi waajuram bàyyi woon dolli na ci ab junni doyul doy daf ko war a jéem a dolli ay millions ndax waajoon nañu koo jàppoon te moom kenn jàpp kenn mësu ko jàpp kenn mësu ko jéem jàpp ndax kenn mënu ko woon a jàpp gannaaw sëriñ bi moom jàpp kenn yóbbu ko moom ay ru ay ay bakkan yu bari ngay tëral door ba ci suñu jamono ji kon boog ku dem bis ni tey na tàmbalee fàttaliku sëriñ bi ci nu mu fonke woon julli moom mu fas yéene fu jàkk nekk mu di fa jullee ji fas yéene weeru koor wu ñëw mu woor ko fas yéene lu ko way diis ci soxla bu nit nee faj mu fajal la ko bu ko mënee su ko mënul mu ñaan la ko yàlla fexe ba génn ci taggalante gannaaw ko war a wax dëgg su la ko laajee wax ko ko fi may jeexale daa xew rek suñ jamono baat bu ñuy wax naan ni ko sëriñ bi bëgge nañ ko def ni ko sëriñ bi bëgge bu dee sëriñ boo xam ne am na juróom-ñeenti fukki at ak juróom-ñett di digle suñ jamono jii mën naa bañ a xam li xew ci mbedd mi mën naa bañ a xam li nit ñi di xalaate ak fi ñuy xalaate ak liñ ñu xam lépp su boobaa ku mu woo na defal nangam jaanam wàcc na yaay seet nam baaxe nam na muy baaxee dong la ko sëriñ bi bëgg loolu tam lu mat a bàyyi la moom la ko mbooloo ma doon nangul nangul ak lañ ko doon bëgg bëgg ak lañ ko doon gëm gëm fu mu leen joxe ñu jëm fa it teewul daana wax lu ngeen ci xam foofu lay jeexale ku nangu woon ku diisoo ak moom la doon na joxe soxna ñu ne ko ah nangam ak nangam mu ne kon baax na damaa defoon ku dem sawar amul sikk rek ku jaar yoonu jëm aljana amul sikk laa yaakaaroon rek ñu ne ko loolu nga yaakaar da mooy xaqul yaqin la am koo xam ne dane nañ ko jox kooko dañoo bëggoon mu kooku da ko bëggoon jox moom kooku dañoo bëggoon mu jox ko mu ne déedéet ñu wax ca lu nekk mu ne déedéet loolu lam lañ cay dégg mooy ana fuñ gisee koo xam ne day wax ñu naan déedéet ñuy waxa ak koo xam ne daanaka bëri naa boo ko fi defee loolu war nañ ca fàttaliku sëñ bi nangoo diisoo kenn ku nekk bu demee fa mu dëkk mu ji ca ñam jaboote ndax dañ daan wax bu njëkk mag dana toog ci suuf di séen loo xam ne gone ga yéeg du ko séen waaye jamono ji ñu toll gone dana séen loo xam ne mag du ko séen ndax mag demut jikko lu ko matarooye la fi may jeexale nag ci rag ñàkk rek bañ ragalante gannaaw gi nit jóge na weti kajoor bëgg lu ko neex mom bëgg lu neex sëriñ bi mu jamanté ak moom ni ñi def rek ne sëriñ bi nga def nak mu ne ko ni ma def day moy lepp lu yalla féré ma bayyi ko lepp lu yalla diglé ma ne tax lu sama yow nekkul ma ma lu ci la neex xana bu amono am xel da ne xamni ki kat bokkut ak kam bàyyi bi ci ngor na nga def rek ماني في سنجا وانا موي تونتوم نك دي تونتوم انا سوا كير مو نكو سما واكر غي لاج جوتي وك نيوم دار با لا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا نكت انا واكر دي لاج بار كين دو او يون ما يانك جام مو نكو خامغ لي نك جام مو نكو ديديت mun a ko sax ci ndigal bàyyi tere ku ko def yaa ci jàmm ak xabar lu ñu mën a fàttaliku ci moom Cerno da nuyu na la mu ne ko man ci mu ne ko sëñ Ibra ndax dama jóge Kajoor mu ne ko moo la ne boo demee nga nuyul ma ko mu ne ah, déedéet nag dama faa jóge rekk de mu ne ko bàyyi leen fenn leen ko woyofal lool tam diis ak kabar lu ñu mën a fàttaliku ci moom daw ragal kenn gannaaw nee na nit joxal kii loxo ne ko baal ma jéggal ma kooku ne ko su ma ko def dem sawara ma ko gënal mu ne ko foofu nga tudd boo fa demee yàggul xale yëg mbaa xam nga ne ba nga tàmbalee doonee mukallaf ba fii nga nekk defoo fi lu la fa dem def koo ko fi de loolu xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la tekki kenn mos dem àjjana si jëfam ñu ne ko ba ci jiw mi mu ne ba ci man mii fa nga yaakaar ne fa nga jëm de bul yaakaar mu ko defee ko mu def yëpp ba nga juddoo ak léegi juddoo ak léegi moom moo gën a yàgg mu ne ko kon bokk am maa ngi jéggalu mu ne ko déedéet demal ba sa xol atam ko